keroog nga gis ma invité ku mel ni Lac de Guiers numéro mu wax ci digganteem ak Lac de Guiers numéro deux Euh, mhm. mais loolu nan nga koy jàngatee loolu mu wax xam naa ne war nga ko seetaan. waa seetaan naa ko. seetaan mhm. naa ko ni ma ko jàngate mooy am aw ma bon seen diggante bu ma sañoon mooy dàq mburoog lem comme niñ koy waxee. Mhm. mais effectivement moom li mu waxee na saytaani fu fu fu du du du dem fu fu rafetul quoi. Mm. fu rafet rek lay dem pour jéem ko jaxase xëy na saytaani moo dox seen diggante te maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo tabax kaaba gi yoonu yonent bi yàlla na leen yàlla jubaatle ba ñu mel nañu meloon parce que nag ah Lac de Guiers 2 nag te Lac de Guiers 1 comme ni ni yarkatu xar yi di wax mm-hmm. loolu nekkatul ay affaire de turandoo wala yooyu noonu mais dema xam li mu daj ci palmarèsam waaw mm. parce que lépp suma kanam la pour moo wax la ne la man biñ may tuddee lay de guerre boobu Lac de Guerre numéro deux amagul xam nga loolu. biñ may tuddee lay de guerre. Mm-hmm. kon bu ma déggee ku naan barewul mbapat daf may yéem. Lac de Guerre man seetaan man maa ko seetaan mbapat bi mbapat mi jeexee maa leen jëndale lu ñu reere moom ak Alioune Seye ak benn frère Alioune bu tudd Amadou Sarr. yan mbappat nga seetaan Lac de Guiers 2. Lac de Guiers 2 fekk na ma fii sax mbappatu Lac de mën naa la wax ñi nekk témoin lu amul seede neexul. Mm-hmm. xa Xaadim Njaay numéro un ngi toog Bombardier ngi toog boo Kayre ngi toog Yaaya Jàmme bi nekkoon Pikine. Mm-hmm. mi ngi toog ñëpp takk ngi bu jur guddi googu la daan euh, paate balde ak assurance bu mbuur. waaw loolu lu ma koy dégg bëri na Lac de Guiers 2 naka la daanee Pathé Baldé parce que Pathé Baldé kàngam la woon ci mbapat na da ko ëppoon doole wala wax ma ñoom ñaar dèjà nuñ tolloon. moo wax la ni mu ko daanee bu pare wax la li paate wax ci lendemain bi. acca maa ngi lay déglu. seetaan nga combat Lac de Guiers Tapha waaw seetaan naa ko. mu ngi noonu boo bëggee xam lu mu daane Pathé Baldé noonu la ko daane. da ko ramaas mbëkku ko. da ko ramaas mbëkku ko. di bët setee tànk la moo tax bi bët setee xam nga après ñoom dañu xëy fajarteel après mam maam Mohamed ba yàlla na ko yàlla xaaree àjjana mooy sama maître lépp loo wax ci làmb moom ma ko wax maam ma mm-hmm. ñoom bi ñu xëyee ñibbi après pâté dafa xëy ay neuf ñëw kër ga mm-hmm. fekk ma ma toog mu ne ma ani grand bi ma ne ko mi ci biir mm-hmm. mu ne moom laa soxla woon ma wool ko Mohamed ba ñu ñëw toog noonu ci ëtt bi toog waxtaan mu ko ana booy bi ma daan biig mama ne ko booy ñibbi nañ fajar mu ne ko xamal naa la benn affaire boo ko toppatoo kooku champion lay doon. Hmm? te bu nee booy sax Paate Balde moo ëppoon doole Lac de Guiers 2 jamono jooju. mais xam bu baax a baax moo ko ëpp doole moo ko moo ko gënoon a siiw boobu boobu pour te xamu ko. Paate xamul Lac 2. daan xamul Lac ci mu daan mu ramassé ko mu ne ko parce que booy bi bi ñu waree daje ngaaka laa ko tegoon moo bii la utilisé. su mm. baal ma ci ngaaka laa ko tegoon mais ndeke booy bi nandite la. Mm. lii la wax mu ne boo ko toppatoo champion lay doon man maa ngi toog. loolu la Pathé Baldé wax keroog Lac de Guiers numéro 2. loolu la Pathé wax Lac de Guiers te jamono jooju ñoom xamuñu woon ne ay mbokk ngi ceeg yu mel noonu parce que après lañ dégg ay Fall euh, euh, suñu maam Fallaye Balde ne que euh, Ama Balde du bëri Lac de jamono mel noonu mais kon Lac de Guiers daan na Paate Balde ci mbapat ah jamono jooju xanaa mbokk bi feeñul woon. non feeñul parce que boobu Lac de presque kenn xamu ko woon mu ngi doon soog a commencé di bërintu mbapat noonu. mais est-ce que du kon Jules Balde loolu la xam dafa xam ne Lac 2 dafa aay ci balde balde yi moo tax mu naan combat yu du am. non de tout de tout c'est-à-dire xam nga même au temps da nga doon gis da nga doon gis ñaar ñoo xamante ni ñoo bokk même localité. Mm-hmm. seen kër yi sax du sore ci temps mbapat mais dañuy bëre mbapat mais après instant bii nii nii bu ma la joxee exemple Alioune Seye numéro 2 ak Balla Gaye numéro 2 bëri nañ mbapat. Alioune Seye ak Balla Gaye dégg naa loolu ku daanoon. bon je crois bien Balla Gaye moo daanoon ci lañ ma wax parce que nekku ma fa woon. dëgg la maa ngi au passage maa ngi nuyu au suma xarit boobu. Mhm. meilleur lutteur de sa génération Alioune Seye numéro de moo dàq bëri ci làmb ji. Hmm? loolu ni ma koy dégg bari na. ko déggaat di encore. Hmm. waaw mais yow nga ni Lac de Guiers 2 Ama war na leen a boole benn yoo yow d'accord nga ci loolu wala pour yow waruñoo bëri. non man nag wax dëgg neex yàlla comme ay affaire de mbokk wax nañ ko ci daal te làmb day jeex te mbokk day continuer mm-hmm. bu ma sañoon comme adversaire yi bari nañ daal ku nekk xooli leen moom moom moo gën ñuy bari après muy mën na indi ci ay affaire de mbokk ak yooyu quoi pour man suma xalaat bu gàtt. allah am na solo. Mm-hmm. am na solo à mbapat boobu nga xamante ci mbapat boobu sax laay des mbapat bi nga xamante ne Lac de Guiers la daane Paate Balde ci kanamu Bombardier te Lac de Guiers numéro un organisé woon ko kan moo jël final bi. si je me daal xamatuma mais Alioune Seye il paraît Alioune Seye numéro deux moo ko jëloon yaakaar naa mais jour boobu moom la Lac daan Pathé Baldé daje ak euh, assurance bu mbuur daan kanamu Bombardier daje ak assurance. noonu la ñu la tegloo ñaari combat nu mu demee moog assurance. moom assurance nag moom xawoon na metti parce que xam nga assurance car macha allah je touche bois catuma ko mais dafa yàgg euh, am kantan quoi car. Mm-hmm. catuma la de bër dafa yàgg am kantan moo tax combat ba xawoon xawoon na metti quoi. mais oh. finalement lag de moo ko daan. Lac de Guiers moo ko daan mu dégg mu am ñu naan assurance a daan. non du tout. Bombardier boobu bu la neexe boo jógee ci biir laaj ko ma nga woon toog. wala nga woo Boy Kayré laaj ko combat bi dafa amoon nit ñi lan moo tax ñu ne assurance mujjee bëri final bi. parce que comme ni affaire bi demee woon am na daal Lac de Guiers koy expliqué keroog am na ñoom nu ñu ko defee woon xam naa xëy na dañ doon bañ mu nekk comme affaire de dañ ko organiser bu pare turandoom ak yooyu noonu quoi. Euh, ñu xaw am na daal nuñ ko defee bu Alioune Seye bëri ba mais comme combat boobu moom waa ji yoroon micro central bi mu mën a mu ngi may nettali man xaw ma mu ne ma Bombardier gi naan booy bi tas na suma yaakaar. <laughs> maanaam boobu Lac de Guiers dafa daan dafa daan assurance. gaa yi daal assurance am nañu ko wëlbati. Hmm. xam nga mu ngi mel ni rek mbër booy bu ñëw daan ñoo xam ne déjà commencé nañoo am tur ci làmb. Hmm. tas yaakaar lay doon quoi. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la am na solo am na solo mais mais mais kontaan naa ci yow torop ci ci ci li nga ma expliqué nii ci làmb débb mais su ma ñëwee tey ci làmb tey Alioune Seye 2 pour yow lan moo indi ay tolof tolofam moom i nga moom mi nga xamante ne nee nga mooy meilleur lutteur de sa génération. bon moom tolof tolof laa koy tuddee xaw ma ndogalu yàlla laa koy tuddee man dama jàpp ne rek xëy na heure moo sonneegul quoi. Mhm, mhm. Mm, parce que bu fekkente ne entrainement la mhm. man xam naa ko ñeme na ko lool te bëgg na ko ci xol bi mhm. bu fekkente maanaam ko moom ni mu koy waxalee boppam mhm. lépp lu làmb bëgg rek moom ma nga ca lépp lu làmb bañ moom du ko def mais est-ce que amul mbër yoo xamante ne dañu nekk mbëru bëri dóor ak yeneen mbër yoo xam ne dañu nekk mbëru mbapat toj mbapat taxulaa toj bëri dóor parce que arène arène arène dafa am façon bu ñu koy bëree dafa mel nii waaw arène am na façon buñ koy bëree mais booy xool tam xam nga alin Seye yow ci sa bopp même boo ko boo boo boo xoolee arène am di nga xam ne kii mm. gars yi dàquñu ko pomi wala moo leen dàq sax pomi mm. parce que bu dee xeex mën na ko bu dee bëre bi mën na ko te jaar na ci coach boo xam ne tarkala macha allah muy Mouhamed ba yàlla na ko yàlla xaare àjjana encore une fois mm. kooku du du former cuune mais man dama gis ne dama jàpp na rek xëy na heure moo jotagul. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw loolu daal laa jàpp. macha allah euh, euh, maa ngi ne woon damay dugg ci làmb démb mais mënumaa bañ a laaj kooku nga xamante ne mooy Mouhamed Ba muy Mama Ba ba mu doon waxaat tuuti histoire Mama Ba parce que Mama dafa nekkoon lu tuuti ci biir ay mbër ci biir ay ponkal mais Mama mel ni mbër yooyu yëpp Mama leen ëpp fit mais loolu <laughs> explique ma tuuti kan mooy Mama Ba. xam nga déjà Mama mbër la lu ñu bëri xamut. bëri na. bëri na sept combats. Hmm. six benn défaite. Hmm. pour wax la premier combat am gaynde la njëkk a dajeel. <laughs> ndeysaan kon gaynde ah. yàgg na. gaynde. moom moom mag cere maase ak laal. léegi nag yàgg nañ ndeysaan. c'est-à-dire Mohamed Ba moom mu ngi tuddoon Balla Gaye numéro 2. ma Ba moo njëkk a tudd Balla gay 2. moo njëkk a tudd Balla Gaye numéro 2 moom ci boppam ci làmmiñam yal na ko yàlla xaaree àjjana ak ñëpp ñu mu fa fekki moom moo ma ne. waaw. bëri naa lu ma trois ba quatre combats sam papa yëgu ko. parce que parce que commissaire de police la woon police intérieure. xam naa Gilles son fils boobu bu déggee li may wax dina ko xam. Mhm. mooy Gilles ko code su de Guiers de doomam bi. léegi moom bi mu commencé bëre noonu mu ne ma ndeysaan day dem kër ndem si yàlla Alioune Seye na ko yàlla xaaree àjjana moom it. Mhm. foofu lay ngéem boo préparé foofu noonu ñoom moom ak père Ball ñu préparé ko. mu dem stade daan mu ma naan ndeysaan bu ma ngémb woon ak suma ndawaay bi comme ni ma koy waxee mu ne da ngay dégg père Balla naan man kay leen rek ma jaaxal mooy doole ji waaye bu dee fitu mën a bëri ak xeex moom yàlla def na ko ci moom waaye doole ji rek ma ci jaaxal <laughs> yal na leen yàlla xaar àjjana bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> amin amin <laughs> moo doon wax loolu moo doon wax loolu ne suma turandoo bi doole rek ma ci jaaxal waaye bu dee fit ak bëri ak mën a xeex moom lépp daje na ci moom. <laughs> ndeysaan ndeysaan. boobu Mamba baa ngi tudd Balla Gaye numéro 2. ni Balla Gaye numéro 2. mu bëree mu bëree sept combats lan moo tax mu bàyyi bëri te am ci six victoire benn défaite. moom nee ma après benn moment. dafa concentré wu nag ci coaching bi parce que foofu lañ ko gënoon a soxlaa quoi moom nee na ma xamoon naa ne du def carrière mais comme am naa amour bi te xaw naa ko man mani naa ci naa ci fawantu nii mais moom coaching moo gënoon nekk objectif carrière ndax ndax vraiment doole voilà mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. looloo tax moo mais mais yan yan affaire yan mbir nga mos gis ma nga dund noog Mbamba mba ci làmb nga xam ni kii boroom fit dëgg la kooku moo raw fit kaw kay xaw ma nu ma koy tuddee. Hmm? la ca ginnaaw fit la ca ginnaaw fit parce que bis moo ko bis moo ko jaraloon. Hmm. bis moo ko jaraloon te am na ñu bari ñu àndoon ak moom bu fekkoonte ne mi ngi fi ba tey yàlla nag mooy mooy def. Hmm. mais bu fi nekkoon ba tey foog naa ne demee na neneen. Ah, waaw waaw écrit waalo kenn waxatu ko bu fi Mamba Ba ne woon ba tey parce que emprise bu mu amoon ci ndaw yi la. c'est ça am na benn bu ma fi tudd mu ne ma. laay ma ne ko ah, mu ne ma diw dañu daje stade mu ne ma grand ma ne ko ah, mu ne ma bu may bu may bu may bëri mbëru waalo mhm. duma ma xalaat adversaire bi yow rek laay xalaat mu ne même bu ma bëriwul ak mbëru waalo wara a beneen mbër bu ma doxee ci biir stade bi mise entrée bu dajeeg yow sax damay tiit foog ne sa mbër laay bëreel ndeysaan ndeysaan waaw te da ko da ko jaraloon da ko ñoroon làmb de ko jaral lu ne. Mhm, mhm, mhm. muy muy sacrifier laay fam. boo bëree fit sa mbër mënul ragal. c'est ça quoi. c'est ça. da làmb da ko làmb da ko jaraloon muy tëj këram. di ñëw ndeysaan maa ngi fàttaliku ci ay préparation la dëgër da doon tëj këram ñëw fii nii nekk fi un mois yoo xam ne benn yoon la ciy dem Dakar wala ñaar. te day xëy dem gontu ñibbisi. boobu fan nga da ñëw di entraîner Lac de Guiers nekk Saly. muy liggéey ak moom boobu Lac kan la doon kontakal. bon Lac bu amoon combat doon na ci doon contact euh, bu combat bi desoon par exemple lu mot un mois quinze jours wala deux mois. Mhm. patron bi da ko doon may congé mu dem pour contact yi mais bu nekkoon comme préparation Euh, comme bu desee lu ëpp deux mois moom da doon def physique musculation boxe. Mm-hmm. xam nga yooyu lañ doon liggéey quoi mais contact yi moom bëri bëriwutoon noonu. Mm-hmm. moo taxoon ñu koy may un un deux mois avant. le combat pour mu dem écrivaalo. si am na combat yu mu contact ak Bombardier. je me rappelle très bien non pourtant. moom maam jàmbaan wóoruma ndax contact nañ en tout cas Saal doon nañ fa daje parce que buñ doon dem Saalu panel bis mooy fi mu la ne foofu lañ bokkoon di entraîner. Mm-hmm. foofu ñun ñoo doon ànd doon nañu defandoo musculation boobu temps ab bombardier mu ngi doon ànd ak Auguste ak euh, gënoon a bëri. ak. ak la doon ëpp li ñuy li muy àndal stade euh, Saal. dëgg la dëgg la boobu Lac de Guiers 2 itam Lac de Guiers 1 itam nekkoon xaritam ñoom ñaar ñuy contact lu bari daal. waaw ko en tout cas am na combat boo xam ne je me rappelle très bien moom ñu ngi doon contact ci plage bi moom suma kanam. Mm, ñaari combat sax yu ma jàpp da koy lem rek damm yax yi. ah non xam nga nag contact yi contact yombewul noonu te moo wax ne la kooku nag. boo ko de da doon metti de ah. non kooku xam nga bon lu uude wax ci béy ba xaw ma ñu ne derba la xaw ma mais kooku ndaanaan la tam la dëgër. ndeysaan dafa dëgër këj. mu ne bëri ñetti fan. moom daf mu doon wax ne mu dijj dëgër ko gën am na benn kombam bu ñu bu ñu doon dox biñ ma bi bi téléphone bi sonné ma jotali ko muy Serigne Modou Niang. waaw. mu ne sa kombaak diw laa soxla. commando tudd na ko keroog. waaw. bi mu coupé ne ma Serigne Modou de moo ma doon woo suma combat commando la bëgg. Mhm. dama ne ko bu ko jël de. <laughs> fekk ñu ngi matinalu ji plage ma ne ko bu ko jël de. mu ne ma yow kañ nga doon tapet <laughs> ma ne ko non du tapet yow gis nga commando. <laughs> mu loolu day dara. waaw ma ne ko non ma ne ko yow sëñ moo woo na la fan yi passé doon la wax beneen mbër. Mhm. mbay Diouf commando waaw mu ne ma waaw mais nee na commando daal fi mu nekk nii moom moo gën a kii quoi moo gën a positionné ma ne ko tey ngaa jël Mbaye Diouf mu ne ma man daal tëgguma combat moom mooy tëgg ku ma jox ñoom ñaar laa yemale ma ne ko man de Mbaye Diouf ma gënal <laughs> boobu yow lan nga ragal ci commando yow gisoo commando <laughs> <laughs> ah, commando de neexut a commando neexut te ñeme commando mais finalement bi bi combat bi taxawee nag mu ne ma ñu dem entraînement mu ne ma laay ma ne ko ah, mu ne ma xanaa xamoo commando moo gën a neex a bëril hmm? ma ne ko lu tax mu ne ma parce que punkal la hmm. moom Jóob moom ak ngorom du ko may mu may daw hmm. te bu ma ko fa fekkee moo xam ne lépp dëgg la lii la ma wax ndeysaan ci ah c'est vrai commando dafa nekkoon ci yoon boo xam ne da nga ne est-ce que gars yi woon bu ñëw nekk benn genre Tyson ñëw rek nekk benn mythe commencé di dem ca kaw. c'est ça moom moo choisir boppam Lac de Guiers. Hmm. wax na la ko keroog. ah da ko bëggoon def jaarukaay moom moo ne jox ma Lac de Guiers ma daan ko parce que boobu daan Lac de Guiers tam succès la woon quand de ndeysaan waaw mu ngi tegle ay victoire yoo xam allah. waaw. waaye keroog de combat bi moom mujjeewu la neex ci moom. mu ngi jóge ci benn saison de boo xam ne macha allah après mu bëri ak baabooy jël ci defet mhm, mhm, ci diggante mhm. boobu xëy na mu yaakaaroon ne foofu dina nooy te moytul ma mu jóge ci defet ndeysaan hmm, na solo mais mais mais mais ma ñëw tey ci làmb yi nga xamante ne taxaw na. waaw Lac de Guiers mi war a jàkkaarloog Eumeu nga xam Lac de Guiers 2 mhm. bu baax te su ma jubul xam nga Eumeu seen bu baax itam. Lac de Guiers 2 bëri ñaari combat ak Eumeu Sène mënul dara ci Eumeu Sène premier combat bi mu match ñu deuxième combat bi Eumeu Sène daan ko troisième combat bi mu am détermination pour ñëw def 1-1 te ñoom sax am na ci staff bi ñu gëm ni que Eumeu seen mosul daan Lac de Guiers deuxième combat bi jënd ba leerul moom mu war ñëw wane boppam ci combat bi. est-ce que combat bi dina gaaw. bon combat boobu combat bu difficile la ci ñoom ñaar. Hmm. lu tax li tax mu di li waa kay parce que xam nga booy xool ñaari yooyu ñu ñuy yépp yombul. Hmm. yow yaa ko waxal sa bopp yow yaa ne am na ñu jàpp ni. Hmm. jël bu bu bu ko amul seen daan des na bon arbitre joxe na victoire dañ ko jàppee rek defet léegi nag bii di ñëw li tax muy compliqué mooy Lac de moom nee na lu ma am ci làmb bëri Eumeu Sène moom ma ko gënaloon parce que su ma naqaru làmb moom ko jëkk a mm-hmm. moom nee na dafa am fu mu jógee mm-hmm. te lim ko mën a effacé mooy daan mm-hmm. loolu moo compliqué ko combat bi ci ñoom ñaar ñëpp bu tax na ku ci nelew lu toll ni tarfatal ay ni gëm naa ne <laughs> sa accompagnant yi dinañ génne stade bi ngay doog a comprendre li xew. pour yow Lac de Guiers pour mu daan Eumeu Sène naka la war a aborder combat bi arbitre sifflé ban façon la war a andi ci làmb ji pour daan Eumeu Sène ban stratégie. bi xëy na xaw ma buy nekk ci xelam mais man li ma xalaat ne moom moom moom la mën a daane Eumeu Sène. boobu laa bëgg sax nga wax ma. pour man daal Eumeu Sène moom Lac de Guiers pour mu daan ko parce que Lac de Guiers nag moo wax la benn affaire loolu moom. Sénégal gépp xam nañ ko kat la woon xëy na fan yii la xaw a géej a song la ñuy wax mais da doon riñaan ndax archive yaa ngi fi mais pour man arbitre bu soufflé mu xañ amul seen jàmm xëpp ko saaku yàmb. saaku yàmb. maa la wax loolu. saaku yàmb bu ko xëppee saaku yàmb moom. la mooy saaku yàmb kurpeñ ñi takar naase. mel ni mbàccum gerte. bu ànd ak contrôle nag. Mm-hmm. waa dafay ànd ak contrôle. Mm-hmm. te moom mën na ko parce que Mohamed ba moomu dinaa dellu si moom mooy sama maître li Père Khadim Samb naan ne woon na ma man mënumaa wax ci làmb ñaari baat te néew ma la maam ma. daf ma newoon daf ma newoon làmb coach si boxe yu bëri ñu ngi entraîné ay mbër day des parce que mix cocktail lay nekk boo xam ne. doo ne mbër mi boxe kese kese kese kon bu ñëwee bu arbitre sifflé bu bëggee mixé ba bëre bi ak dóor bi day réer. Mhm. mu ne moo tax ma ne la moom dafa ne woon dafa bëgg a dugg ci làmb loolu la woon dafa bëggoon a xam nan la ñuy mixé dóor bi ak bëre bi. Mhm. xam nga booy xool ci ñimu mu formé ñëpp amu ci ko kenn koo xam ne dafay am ay lakin ci côté xeex. Mhm. xool leen ñoom ñëpp. macha allah Lac bu buggee bu daan Eumeu Sène pour man. Mhm. arbitre bu soufflé du ko may jàmm. muy dóor kon dóor mu daanu nga ci gis ci làmb jooju rek moo mun a may Lac de nam. non non non non Lac de Guiers kooku bëri la mën. Mhm. bu jëlee décision bu bëri mën naa daan ku ne ci bëri. Mhm. waaw. kon maanaam xeex bi day xeex ba pare tëjee ko bëri. waa wala mu nekk mixage cocktail rek mixage boo xam ne da ngay xeex di bëre. di xeex di bëre. waaye waaye attention si ko muy dajal nag. ma foofu laa doon jëm. pour yow Eumeu Sène lan mooy stratégie bu gën a nooy ci moom mu daan Lac de Guiers ci lu nooy ba ñibbi këram te du takk suuf du gaañu du am du sonn daal. xanaa lag de Guiers ñëwee comme ni ñëwee woon bu njëkk ba rek. Lac de Guiers ñëw comme ni mu ñëwee woon. bu njëkk ba mooy bi mu koy daan deuxième bi nii suma tànk bi ci ganam du fekki bi ci ginnaaw hmm. loolu moo nekkoon erreur am ci combat boobu. maanaam Lac de Guiers saa bu dëggalee boppam saa bu ñëwee ci Eumeu Sène te àndut ak contrôle wala mu dëggal boppam digganteem ak Eumeu Sène am na mille chance daan ko. waaw parce que mbër da ngay war say kàddu du doon bàkkaar làmb lañ nekk li ngay wax ak li ngay jëf bu mu doon benn. moom combat bee dafa ne Eumeu Sène da ko nax ne ko bi yoon na nga taxaw te pourtant booy xool seen premier combat. Mhm. quatre sorties yi fa am yëpp presque Eumeu seen moo jéggi saako yi. Mhm. image yaa ngi fi. Mhm. mais bi comme public bi dañu jàppoon ne la de moo bëriwul. Gaston mi tegoon combat bi moom toog naa dégg ko mu ne ba ma dalee tëgg làmb 92 ba léegi tey laa gën a am satisfaction ci combat bi kontaan naa ci ñaari mbër yi. machine yi luñ may bëri nañ léegi biñ delsee nag ama seen de ko ne na nga taxaw hmm. moom jomu métissage bi jàpp ko soose beeg séeréer bi ak jiko waalo waalo bi dugg ko mu ne suma tànk du dellu ginnaaw waaw Modou Lo ko mais kenn daaw mënu ko woon reproché dara ci digganteem ak Eumeu Sène bu njëkk digganteem zéro faute hmm. Eumeu Sène nag topp mayen bi ne ko taxaw na taxaw Mhm. xam nga loolu loolu loolu en général Balla Gaye bi mu naan Modou Lo ni nga ma ñemee ba dëkk ba bu bes ba na nga taxaw dëggal sa bopp. Mhm. damaa dégg bi combat bi passé ñiy laaj per Ipongaar yi mu ne foofu la Modou daanoo parce que di ko woon ne ko man jom laa gaynde laa duma daw. Mhm. te combat dafay am fu muy toll dafay laaj nga reculer. dëgg la Eumeu foofu la naxee Lac de ci combat boobu. te loolu mooy mun taxat Eumeu Sène daal yow da jàpp ni. dafa war a fexe lak dëggal boppam pour mu daan lak lu yomb. waaw jéem ko nax dong la ci bëgg de. nu mu ko mën a naxee daal bu lak indee war Eumeu Sène ban stratégie la war a addi. bu lak indee lan. war maanaam arbitre sifflé lak dëggal boppam lak taxaw yi fële di léewtoo yenn saa mu cokkaas yenn saa mu taxaw Eumeu Sène naka la war a mun def pour génn ci combat boobu. xam nga Eumeu moom màggetum koj kororoj la moom bari na ay feem. Mhm. mën na jéem a mel ni ku indi xeex te xeexul pour wóola ci pour jéem la juumloo mm-hmm. mais nag booy bi moom on dirait qu'il est conscient ci loolu te gis naa ni combat bi dafa bëri ay bataay ci biir quoi mm-hmm. parce que booy xool seen face à face bu njëkk mu ngi naan kaan xaw ma yan baas xaw ma mm-hmm. mu mel ni genre benn mara bu mu récupéré la maa ngi gisaat Mohamed Ali Dia yaa ko dalal keroog je crois bien boo yooyu yëpp dafay joué ci combat bi moo tax combat bu difficile lañ nar a bëre comme ni ko père Birahim de waxee combat bu difficile. dafa bëri ay affaire yu ci biti quoi xamante ne day am influence ci biir combat. waa kay waa loolu la. day am mm-hmm. influence ci combat bi. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo.